Euh, dison booloo ñëpp nekk benn lu tax parce que euh, dañoo am gis-gis gis-gis bi moo leen mooy état bi moom day bëgg indi ay ndimbal ndimbal yoo xam ne da koy jubale si population bi léegi population bi si biir population boobu noonu am na yoo xam ne ah sonn ñooñu noonu day am ay politique yoo xam ne état bi moom da koy da koy da koy teg mais politique boobu noonu dara wóoruñu ne ah mu ngi dox xaaral kon ñu xool population boobu noonu ñoom lan mooy seen jafe-jafe léegi jafe-jafe yooyu noonu léegi ñoom ñoo koy wax ñoom buñ ko waaw ñoom ñoo koy wax ñoom buñ ko waxee ah am nañ si yaakaar ne que état bi si boppam am si gis-gis boobu moom dina dina toggaat xool ah, nan lay toggaat mbir mi pour que ñëpp mën see jot. ah gis nañ si ay jafe-jafe gis nañ si ay jafe-jafe ñun par exemple nekkul Thiès rek lañu lañu la waaw la ñuy la ñuy soog a door am nañ ay régions yoo xam ne dañuy dem. kenn nañu ah man de euh, par exemple bourse de sécurité bi mbirum mbirum bourse de sécurité bi de man pour dem jëli samay vingt cinq mille ah quinze mille francs de lay paas te bu ma demee bu foofu noonu foofu lay fanaan donc genre exemple yooyu noonu gis nañ ko si si région yu bëri te yooyu noonu état bi mu bëgg na bëgg na jàppale ñëpp mais des fois du jot si information yooyu noonu donc dafa baax que moom tamit mu xam mu xam comme ça ku nekk jàpp ne ah état bi de yëg na ma te dinañu jàppale comme ça man tamit ah ma mën see jot. waaw si warum information si warum information. donc euh, ndaje mi dañ ko organiser consacré ko projet OSCAR fii ci région de Thiès donc OSCAR mooy organisation de la société civile pour l'action et la recherche donc comme ñu nga ko waxee ginnaaw bi état du Sénégal tegee ay euh, ay doxalin. ci wàllum fexe ba nit ki même su fekkee amul revenu yi nga xam ni moom la bëgg su soxlaa faju su soxlaa jàng wala soxlaa leneen ak leneen mu mën si jot mu mën si am accès donc looloo tax ñoom entité yu bëri ay structures yu bëri yoo xam ni dañu jug pour loolu mais su fekkee tamit dañ ñëw ay gis ay organisation de la société civile muy ay ONG association ñëw di ko def si di jàpp si jàppale état loolu dañ koy rafetlu te ñun en tant que autorité administrative dañ koy bëgg a accompagner donc looloo waral ñu woote ndaje mi tey ndaje mi tey nag li mu am comme objectif li ko tax a jug dëgg-dëgg mooy fexe ba xool comme ni ma ko waxee léegi doxalin yi nga xam ne am na fi yëpp ci région bi yi nga xam dina permettre nit ki am assurance sociale am sécurité sociale ñu fexe ba identifier xam yan la xam yan la def listing bi mais également ñu fexe ba xool ndax politique yooyu nit ki am na ci accès ndax nit ñi bëgg nañ cee jëm mais aussi ndax loolu mën na am résultat yi nga xam ni ñu ngi koy ñi ngi koy xaar donc étude boobu la ñuy la ñuy la ñu fas yéene def ginnaaw si loolu tamit xam naa ay campagne de communication dinañ ko amal fexe fësal mbir mi mais également fexe former ñëpp ñi nga xam ni acteurs yi nga xam ni dañuy intervenir ci secteur protection sociale waaw lëkkale bi mm, su ma si tontu dama naan da koy seet ci objectif yi parce que léegi bi may wax si objectif yi maa ngi wax assurance mais également objectif phare bi mooy fexe ba ñu jëm ci benn loi boo xam ne day tënk day organiser ni ñuy defee protection sociale ci réew mi parce que comme ni nga ko waxee entité yu bëri ci ministère yu bëri ak ay programme yu bëri léegi léegi maa ngi ciy cité bourse nationale de sécurité euh, familiale maa ngi ci cité lu ci mel ni carte d'égalité de chances ak mutuelle de santé yi ak politique yu mel noonu dafa nekk ci ay ministères yu wuute ñi ko ŋànk doon ay secteurs yu wuute donc bu ñu jëmee ci loi boo xam ne dafay ñëw pour organiser protection sociale bi dafay jëm si harmoniser fexe ba dajale doxalin fexe ba organiser waat ko fexe aussi ba fësal ba wane yoon boo xam ne benn lay doon nga fexe ba ñu fexe ba am action boo xam ne day doon action boo xam ni dañ ci résultat yi ñu ciy xaar dañ koy mën a am ni ñu ko bëggee